na nga xamne yow ya ko def way defoko ci ndigalul serigne bi mm-hmm. bu boba nak ña nga fekk ci buntu bi su nee demal wuti ko it na nga xamne ndigal la luñu jotté ci serigne bi ci kenn ku nekk war ko sàmmonteel mm-hmm. te bu ñu itam ñu ba sorele sa pay buñu jullé ba nopi ba ñuy ñu genn par kenn kenn loola moy ñu baña wat ci buntu bi ndax dajalo bañ doon bañ ci biir itam dañ koy bañat ci buntu bi mm-hmm. serigne bi nak wax né loolu mi ngi ñaan bi yépp ñu ci ak ñi nga xam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 la ci djublu waye djublu ci aljuma ak lu aljuma ajjuma julli ci julli djuroom lolou moy ndigal li ku julli ci aljuma lolou moy ndigal li kuy siyaare si ci barab yi lolou moy ndigal li kon dal kep ku ñew ci djuma ji na nga jital raxasu di wo alkosel ba buñ wax te boy ñew na fek nga tak masque jotaay yi itam nañ koy sorélé buñuy genn itam nañ genn kenn kenn te baña raj raj lo